ba duggee ci formation bi wax dëgg yàlla. formation bi de man mën naa wax ne am naa ci lu kawe sama jot ndax li ma si dugaloon man la ma doon xaar kese kese kese lu loolu kese laa fa fekk. Mhm. dama fa fekk lu mu kawe sama jot. ci volet bu ne bu ne waxuma la ci sama diggante sama presque jigéen bu nekk buy dugg si si formation presque li ci gën a bëri volet ménage bi rek lay doon. Mhm. fii conjugal bi rek. problème vie conjugale ngay am ne nga ne xaaral ma dugg fa. Mhm. xool ba xam ndax dina am solution. mais yàlla def na ne boo duggee di nga fa am éducation éducation des enfants nga xam nga yore sa ay njaboot nga xam ne que ne ci li nga nekkoon. ci li nga nekkoon nekkati du yàlla. Mhm. yow da nga doon terroriser sa ay doom. donc bu ñu foofu ñu ñëw ci gestion bi nga xam nooy gérer sa xaalis ndax di liggéey aussi te mhm. loolu tamit nekkoon <laughs> problème bu rëy. <laughs> surtout ci sama côté man moom franchement Fatima bi ma beaucoup beaucoup sauvé. sant yàlla <laughs> ba dama doon sànni sama xaalis rek par la fenêtre. sant yàlla moo xam. am na lim naa ñàkk xam nag li mu waral bari na aussi mhm. ndax pour yow loolu mooy amaana loolu mooy sëy wala amaana noonu ngay euh, c'est comme si tu achètes l'amour des gens tamit mhm. pour yow pour ñu bëgg la il nga investir sa xaalis wala nga investir sa jënd ay gam ko defal ñu accepté mhm. ñu accepté nee naa xam ci ñoom la ah def nag. xaaral ma coupé micro gan gi <laughs> coupé naa micro gan gi <laughs> gan gi déglu ñu tuuti <laughs> après nga ñëw. Mhm. voilà donc nga nga dem ba nga xam ne que ne yow li ngay def. Mhm. yow ci n'as pas besoin d'acheter l'amour de ces gens là. Mhm. pour que ñoom ñu bëgg la yow jéem la bëgg sa bopp. surtout bëggal sa bopp. xam sa bopp fonk sa bopp. c'est facile nag boo koy wax nii nii nii dañ naan noobu lay bëggee. dafa yomb. ils vont te la question nan ngay bëggee sa sa bopp. surtout. nan tamit ngay fonkee sa bopp et tout ça. Mm-hmm. mais yow da boo defee formation bi di nga xam ne ndeke c' est tellement facile c' est tellement facile de se libérer de nga bëgg sa non c' bi ma defee formation xool léegi damay dox di bon def damay nekk di di wax. <laughs> <laughs> ay dimension la. non damay léegi wu. commencé xam sama mm-hmm. ma bëgg. di di commencé nag di mën a wax nag léegi. te mhm. avant dama doon wax di ko a wax li ma gënoon a sonal mooy dépendance bi ma amee woon. Mhm. ma sonn ma tuuru ko ci ci nit. aadama jàpp ne kooku moom ma war a mën a jàppale su dul nit ñi dem su dul nit ñi a dem. Mhm. mais bi ma demee ba xam ne ne lii nii yëpp ndekete le problème c'était moi. benn instance na maa de situation ngay am foofu. bu ko defee nag <laughs> nga mën a jël nag aiguille bi sa bopp ne nag léegi nag ñu fi voilà léegi nag je dois me parfaire naa naa jéem a toppatoo sama bopp. xam sama bopp li may liggéey ma investir ko ci sama bopp ak sama njaboot. voilà jéemuma li jënd sama bopp comme ni mu waree. waaw Aïcha boobu de maa lay dégg yaa ngi naan sama bopp sama bopp nit ñi ne leen développement personnel daf lay jàngal nga égoïste parce que après da ngay xalaat sa bopp da am égo da rëy da ngay yaakaar nit ñi. loolu tamit bëgg naa ngeen wax ci de parce que <laughs> dégg naa gars yi ne développement personnel daal égoïsme rek la lay jàngal te <laughs> l'islam jàngaluñu égoïsme la plupart ñi koy def dañuy rëy jàpp ñoo gën a xam ñoo la xam nga xam nga tey boo waxee bëgg sa bopp rek automatiquement nit ñi ci loolu lañ lay sa rëy na sa rëy lañ lay wax loolu moom c'est évident. Mhm. mais euh, bu ne li ci sa bëgg sa bopp. Mhm. déjà sax diine ci boppam yow pour nga mën a jaamu yàlla ni mu waree il faut nga xam sa bopp aussi. nga bopp. parce que man naa wax ne que ne doon naa muuru de. Mhm. waaye problème sur problème yu lay poussé à ce nga am taayal ba di di am ay gëstu sa diine am problème tibb say problème yow sa adduna bi yëpp yaa ngi woon nan ngay solutionné sa problème xool sa diine te xoolal tey ji bi ma duggee ci développement personnel 5D wallaahi al dama koy seedaloo yàlla tey ci fii ma toog billahi wallahi taala li ma def formation bi tey moo ma ba ma a dem di gëstu bi waat tey moo ma boosté tey ma inscrire di jàng tey lii moom a bëgg tey may bëgg di gën a xam ndax la ndax cours tawxiid yi ma def fii. macha allah cours fiq yi ma def fii nika bi ma jàng fii. ci 5D moom moo tax tey jii ma xam ne que ne négligé woon naa kon sama diine. maa ngi doon foowee sama diine. gën a gë tax na tey jii ma dem inscrire ak dugg donc ne muuraay gi mu fi woon waaye dañoo amoon tàyyal pour ci diine bi yàlla nañ ko yàlla baal. mais tey jugaan nañ. te dund sunna bi dëgg mm. dëgg. te xam nag lan mooy sunna dëgg du du du cëqal du cëqal rek de ak ak sol yu ñuul. cëqal rek ak ak muuru sa jëlbaab sol yu ñuul. ah wallaahi ah ñun de ay sunna fashion la ñu am na ko ma a léegi je suis incohérente dafa ah, nga gis nga gis nga gis nga wallaahi ne que ne dund sunna. <laughs> da nga dul taal nit ñi. ñoom dafa waxati ko de. diine bu noppale diine diine bu féex boo xam ne bu sedd xolam nekkul la fi di lay di lay forcer ay lu euh, mu tuddati sax ay jaamu yàlla ne dama yàlla. Aïcha ñi nga xam ne en fait. Aïcha bi yëpp affaire de kii waaw. neel diine boo xam ne yow dañ la koy jàngal ci amour kenn du la tiital kenn du la menacé kenn du la ne boo deful lii lii daal la boo deful laay au contraire dañ lay ubbil buntu di la xamal ni da ngay juum ba keroog ngay dee waaye xamal ni heure boo juumee am nga option tout dégg nga loolu maanaam yow doo parfait tu ne parfait mais yàlla suñu borom mu ngi lay ubbil buntu xamal la ni yow vu que doo parfait mais nag nga war a tegu ci di parfait sa bopp foo toll comme ni la ko yàlla santé mais xamal ni heure boo faqa saloo kenn du la ne boo faqa saloo nag dem nga safara jeexal nga déedéet am nga possibilité tuub te ngay rafet mm-hmm. rafet ci yàlla suñu borom mm-hmm. kon xam nga xam nga diine jooju dootu woon am ragal boo xamante ni daanaka da ngay jàpp ni rek yow lu koo gis jugé ko yow est-ce que boo nekkee 5D di dund sa diine est-ce que di lijjanti kuy mag yow kuy jëxtal ak kuy guddal ak kuy xaw ma lan ak nafsi nafsi waaw nafsi nafsi moom foofu la fay xamee. muy noonu la doon lijjanti ay maquillage yu jàmbur ay kii gis nga tey ah, diw boo demee nangam boo demee nangam yow nit ñee ngi wax li nekk di xolu ah, bi li yëpp ci ne noonu euh, boobu mu ngi ci gratuit man ko bis bu ngeen ñëwee 5D dinaa leen jàngal loo xam ne dootu leen jëw mu ñëw ci deuxième cours <laughs> troisième cours mu ne waat euh, coach ci lan lan mooy tax ñu bàyyi jëw ma ne ko yow fi mu nekk ni boobu ba tey yaa ngi jàngi say defo yow fi mu nekk <laughs> yow li nga jàng boobu li nga jàng boobu ba tey est-ce que boobu ba tey am nga jotu jëw mu xoolaat daal ne am pourtant wax nga dëgg de. wallaahi déedéet da nga koy am lay jotal yow ah, ngay def ba xam sa borom nan ngay def ba gën a jege sa borom yow kon nan ngay dalee jëw. Mhm. yow fii ngay toog boo defee ah, tey ji ki toog tey ji naan kee la mu def ah li mu def de peut-être ngistal moo tax mu def ko dafa ko ngir nangam dafa ko ngir nangam kooku boo ko xoolee ba ca biir. taw xiisam dëgërul ba pare tamit jegewul boromam mais soo mhm. nekkee ne yow foo toll yaa ngi jàng yaa ngi jéem a jege yàlla di jéege di xam lan la la sa diine sant ak lan la la mhm. sa diine tere ah, allahu akbar loolu doo tal sax di toog fi di lijjanti li ni koy def ak lu ni koy def yow lijjanti sa bopp mhm. lijjanti sa bopp ndey sa tey fu mu li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla na yàlla saxal ci tawfiq bii amin allahumma amin Aïcha am nga soppe nday astu Diop nee na tu l'as beaucoup aimé <laughs> alors. ma ne am nga ay soppe ne Astou Diop nee na tu l'as beaucoup ému Aïcha éloquence éloquence laa bëggoon nga wax ci éloquence fi la jëlee. Euh, tim leb lebal ah. <laughs> xam naa tim leb lebal ak tim rappeur. nee na su ma daan wax damay damay yeetal damay mën di yeetal nit tey maa ngi nii di wax. cinq de dafa neex day sa baat laa wax. cinq de dafa neex gën a métti mooy ko def ba njëkk wax nag ma wax ba pare nga naan ma yow eh li ngeen wax da nga mënta yeewu yéen ma ma def sama formation ba jeexal ah def sama exposé. tegal la nga naan ma sa éloquence des na. waaye tey sa éloquence des na. non tey kay moom diisul diis tey moom. moom macha allah. tey moom macha allah tey moom macha allah non. kon si moom fi mu ma jëlee wax dëgg yàlla tey jii bu fekkee formation amul arrêt incha allah yow. incha allah amiin maa ngi yow. ba saa yu formation amee. maa ngi tëb yow waa internet bi bi mos ngeen a gis lii. ñoom nee nañ du ñu bàyyi dañuy dañuy yóbbu yow daa see gën a dee yow tamit dafay yoon loolu la ñu ngi naan waaye école bi bu tëjee ñun suñu jëm. ah ñun dañu mel si sunu dépendance. waaw tey nga am dépendance avec ak sunu groupe. baax na daal sant yàlla ñu ak lien bi nekk si kii bi tey ji bi ça a créé aussi une une nouvelle famille. c'est surtout ça en dehors de la formation dañuy commencé mm-hmm. di di jëpp jokkalante ñu c'est la famille suñu biir vraiment bu paree tey gis ñi ngay waxtaana yow da ngay sentir bu leen di bu leen di euh, liggéey boo xam ne amul bu fort boo xam ne macha allah c'est la famille ndax tey ci koo ci waxal talul di wax waxu jàmbur xam nga ñu mm-hmm. lay wax ci diine ci développement personnel la ñuy waxtaan bi tax na tey jii képp ku dégg développement personnel li nga mm-hmm. bëgg a dugg ci biir bokkul ak yeneen yi ñuy dégg ci réseaux sociaux yi bokkul du sax benn fii tey jii bu ñuy wax les lois universelles comme ni nga ko waxee rek sunnatullah yi ñuy jàng. Mhm. macha allah gis nga dañ ko dañ ko dañ ko lié ak euh, alquran tellement que. waxati ko de. <laughs> yaa loi et loi de. yaa loi et loi. <laughs> yaa loi et loi <laughs> non lii moom wax dëgg yàlla lépp sax kenn mënu ko. wallaahi ndeysaan production bi fii. gis nga tey jii ñu ngi jàng séduction tamit ci ko samedi rek doon yàq. Ah, ah, samedi samedi soir. <laughs> genre faana genre faana gi. <laughs> non yi bu daan ñëw bokkul ak séduction sénégalais bu ñuy dégg nag. waaw xam nga bu ñu déggee séduction dañ naan non ay affaire da jógee sénégalais yooyu moom ñee fii fii séduction psycholo maanaam ci bopp góor gi ngay dugg di ko dox comme max xaay la high level la bii xoolal VIP yee ko moom ni moom dañ koy bàyyi ma ma yemale ko foofu ba moom du ma dugg si ah, détail moo gën de waaw ah, bàyyi leen ñu bañ a dañ ko mën ba yi fi ñeneen ñi nag fu mu ne nii li ma message bi may lancé mm-hmm. wax dëgg yàlla ñi insister à participer à cette formation mm-hmm. je vous dis faut même pas hésiter bu leen sax xalaat sa classe bi da nga naan sa classe bi wax naan voilà li ma non man nag coach hésité ma de. man da ngaa sóobu. non man hésité wu ma de dama doon na dama doon questionné nag xam nga nag di posé ay questions yu dul jeex. gis ni laan nag. waaye question yooyu nga yaakaar ni mën nañ la répondre sans nga dugg. mënul woon nekk. mënul woon nekk parce que xoolal kii dañ lay jox ay ay moo ko de langage yoo xam ne ni doo ci déchiffrer dara. ci comprendre dara yow rek. non mais macha allah man j'ai bien fait de de di participer. sant yàlla je ne regrette pas. sant yàlla baax a baax je regrette ma benn yoon. Mm. te tey ñii wax naan ne yow xaalis bi nga tey laa mën naa wax ne li ma gën a neex. ci li ma investir ci sama xaalis formation bi tey. Mm. moo ma ko gën a moo ma ko gën a. moo ma gën a lépp lu ma defoon. sant yàlla parce que tey jii dërëm bu ma jël dugal ko ci sama formation bi mm. dama ci dama gën a kontaan parce que tey daf maa permettre ma ma ma réussir. wax dëgg yàlla ma rehaussé yu te tamit nit ki bu fekkee ne yaa ngi liggéey même bu dee salarié nga mm-hmm. dina la yokk jom gis nga tey ji formation bi dina la yokk jom yokk yokk la jom goo xam ne ne yow di nga a di basé wu seulement ci sa mm-hmm. salaire mm-hmm. ngay commencé di def yeneen yeneen yeneen business di góorgóorlu di di di participer ci ay yeneen euh, activité boosté daal daf lay boosté daf lay wan ne daal mën nga def plusieurs choses à la fois te mën nga ko jox gëdd bi mu laaj te mën nga ci réussir da ngay gëmaat sa sa aptitude dama foofu moom wax dëgg yàlla côté boobu aussi nekk na lu ma gën a neex parce que dëgg la doon naa commencé def ay petit commerce et tout ça. Mhm. mais xalangu laa daan def daanu rek. parce que li ngay jaay yoo xamuloo noo koy noo koy joxee. waaw surtout organisation doo xam noo koy joxee doo xam noo waaw da ngay investir. à mhm. perte à chaque fois. mais depuis formation bi ba léegi non sama 4 mois yi du ma ko fàtte ba abadan. macha allah <laughs> daal ah, ma ko fàtte. <laughs> sant yàlla nag kaay wax la li ma fi jàng yëpp. Mhm. li ma laa wax li may def non sama xol fu mu ne nii dafa sedd ba li ma bëgg a wax yëpp sax. sant yàlla ma chérie ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ak wér. amiin yàlla gën a barkeel ci liggéey. te ñu ngi ñaanal aussi waa 5D yëpp wax dëgg yàlla jàmm ji yàlla sax. assistante ñu laan ñu ngi lay ñaanal yow itam. yàlla yàlla gën a barkeel incha allah. allahumma amiin jërëjëf ñu ngi bàyyi xam naa am nañu yàgg ci ligne bi aussi bëgg a wootee. incha allah ñu jël ki nekk ci ligne bi kon. <laughs> macha allah kon ñu daal di jël ki nekk si bi di salaam wa rahmatulah. kooku. Kumba Kumba Ñaŋ kon kon yow da ngaa bàyyi TikTok bi baadu lii <laughs> moo gën a wóor de. Ah. waaw Kumba yegg si. waaw bu baax a baax. yaa ngi si jàmm. sant bu baax alhamdulilah di allah. macha allah ak jàmm. di sant aussi borom bi bu baax a baax ginnaaw bañ defee formation yi ba yegg si nii ci góote bi. macha allah macha allah. waaw ah, bëggoon joxe rek sama témoignage par rapport ak euh, formation bi nag. macha allah yes. waaw ah. formation 5D nag vraiment nekk na formation bu complète comme ni ñi fi jaar ñu wax ko. Mm-hmm. Euh, vraiment di nga dugg ci école di def formation yaakaar naa ko tëj mais bii kenn yaakaar naa dugg ko. Mm-hmm. allo. waa ñu lay déglu waa. <coughs> Mm-hmm. waaw allo waaw ñu ngi lay déglu Kumba ñu ngi lay dégg bu baax dañ lay déglu. allo. allo Kumba ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax. xam naa sa réseau mooy déconné. ñu ngi lay dégg bu baax a baax. allo ñu ngi lay dégg. waaw ah, xam naa sa réseau bi moom mooy déconné waaw. waaw ñu ngi lay dégg bu baax a baax. di sant yàlla a indi suñu témoignage par rapport ak formation 5D bi. Mhm. nekk na formation boo xam ne vraiment riche na en enseignement. Mhm. dina a jàngal ci lépp. Mhm. man vraiment li ma ci taxoon dugg parce que def bi mooy sama deuxième fois. dëgg la def naa ko benn yoon bu gis ci sama bopp. moo koy mën bu soobee yàlla. su ma ci gisul woon sama bopp nag du ma ci dugg. sant yàlla parce que lu ko nga bàyyi nga am yitte am sa liggéey nekk ci santé pour gars yi xam ne femmes yi di wax fii du ñu ay femmes naxa naxa de waaw ay infirmière ay médecin ay avocat ñooñu ñoo fi nekk. waaw ay enseignant waaw pour ñu xam ne du ay parce que sénégalais tàmm na ne moo ñii ñii de boo demee dañoo am jot rek amuñu lu ñuy def waaw ñu xamal leen nag ñi fi nekk. wala ñu naan daf daf leen daf leen fay pour ñu témoigner. non. kenn ku nekk di wax li nga xamante moo nekk. te xaw ma leen xamu leen ma mosuma leen a hmm. bu ñuy wax dañuy wax ne yàlla lu la neex wala waxuñu pour wala waxuñu pour ñu dégg. Hmm. kenn ku nekk sa bopp ngay li nekk yow tamit ngay wax. Hmm. vraiment bañ ciy a na ci mañ nga xam yow ay kan. surtout ça loolu moom moom moo ci gën a daal ko. kii madame Ibi Kule la. madame oh, Idine Koule <laughs> yegg si. waaleykum salaam wa rahmatulah <laughs> yegg si la jàmm. daw kat euh, jàng ren ren ji section euh, <laughs> quatre loolu mën naa ko waaye naa waa section quatre man maa ngi naa fi. Mm-hmm. loolu moo tax euh, mun naa permettre quand mm-hmm. man maa ngi lay topp. Mm-hmm. te eh, comme ni nga ko xamee mooy balaa saytu de sax la ñu xamante. Mhm. Euh, mhm. yàgg nañu ci privé bi di coaching ci privé bi coaching ci groupe bi. Mhm. Eh, te ba léegi ba léegi mënuma wax ne wér naa teng teng teng. yow yaa bëggul wér. <laughs> na ngaa bokk ci ñu wér. waaw xam nga dama bokk ci ñi nga xamante ne euh, bëgguma wér parce que man man ci man la waaw man ci man la. ci sama personnalité ci sama voilà comme ñi mm-hmm. jàng xam la ñi xam ñi xam euh, année bi année. kumba après ñoom xam nañ li may wax. ñu jël la kumba. waaw man man nekk euh, médiateur tax na ma bëgg a jàmm ba nga xamante ne du ma wut xuloo du ma wut xeex daal. billaay ndeysaan. <laughs> man maa mel noonu. billaay ndeysaan alhamdulilah. Mm-hmm. man li ma bénéficié woo ci Firdaaw depuis bu njëkk ba léegi mooy presque mooy kii bi tamit euh, xam sama bopp. Mm-hmm. xam. fan laa war a yem tamit sama muñ. Mhm. parce que c'est parce que baax naa que mën nga maa pousser juste au bout. Mhm. loolu moom am na ñi ñi paye les frais. Mhm. Euh, boo ma poussé jusqu'au bout di nga gis ne médiateur mën na mel. donc euh, loolu moom ku nekk nga xam ne boo amee commune bi man sa famille dangay mooy gis tooñ. parce que man buñ ma tooñee gis nañu mën naa mel. macha allah. loolu tamit li ma tax ah, ma ma ma dem ba génnee ko. Mhm. jàng jàng bi moo tax ci coaching bi moo tax ma dem ba ma man a génnee loolu. Mhm. mais man bi ma demee ba génnee loolu gis naa résultat bu mag a mag a mag mun naa la wax ne coach. Mhm. Eh, maa ngi ci un an passé novembre un an. sant yàlla sans sans sans ah sant sans sans sans conflit. soxna yi dégg ngeen. waaw dégg ngeen <laughs> ci euh, victimisation bu metti ba il bi explosé. Mhm. daaw ci novembre bële. Mhm. bii de bële. Mhm. man ma ma ma ma man ma doog a am jàng loolu moo wane ne bi mën na laa mën na bu baax a baax a baax. parce que dina la yor naka say say problème. doo doo kii daal. doo di nga mën a génn. <laughs> te dara te problème loolu moom. loolu am solo. waaw am courage affronter les conflits comme il se doit. waaw mm-hmm. sans a neex kii bi mooy. mooy xam communication bi. ci suuf da nga xam ne communication bi fii la. mooy puissance mooy puissance bi de. waaw mm-hmm. bu la kenn nëbb. moo gën a am solo. parce que mm-hmm. comment communiquer avec les hommes. a bu fekkente ne mën na mën na bëgg bëgg na laa indil problème yow di nga xam ci de fan fan ngay jaar. c'est ça da prévenir affaire <laughs> bañ a bañ a nekk médecin après après la mort mais médecin avant joxe prévention. avant voilà. Mhm. loolu nag euh, mooy mooy gas moo ma ko may. mooy communication communication. bu ñu defee bis bi waaw loolu moo ma ci may nga xam ne kii mhm. nga xam a moy beneen bi mooy. Euh, ñu ngi jaajëfal euh, oustaz Ibrahima. Mhm, macha allah parce que moom tamit dimbali nañu bu mhm. mhm. ñu ñu xam mooy suñu droit su su kii bi ni kaa euh, lan suñu droit. ci sëy bi jàngal nañu fekk ñu xam lu ñuy lu ñuy defee yëf yi. fan la ñu war a réagir ak fan la war a muñee. ñëw na ak waaw ñëw diine bi dafa ñëw mu daal di ànd ak volet coaching kii prudence bi. Mhm. mu da di a développement personnel mu daal di ak volet diine bi. Mhm. yow yow sa coaching melul ne yenn coaching nga xamante ne ñoom dañ lay duñ la duñ la teg ci ci lislam duñ la teg ci lislam mhm. dañ lay wane neneen. alors que yow sa coaching yow ku ko topp di faw nga nga jaar ci yow. parce que déjà ñu ngi roy ci yow. yow ci problème boo am di ko taxaw taxawaay bi nga xamante ni ñu nekk ci privé bi xam. dañ ko taxaw taxawaay bi moom bu ñu génnee man xam nga Khadija xam nga yi dañu jàpp ni yow booy wax ci problème nit ñi dañuy jàpp ni yow amoo problème <laughs> xam nga sénégalais loolu la ñuy jàpp dañuy jàpp ni yow daal yaay coaché rek yow daal non yow problème amoo ko. waaw <laughs> <laughs> ah, fekk na boobu yow problème yi nga am.

man dëgg la du ma léegi moom. lu ma yëg bu bariwul. mais maa ngi déglu de. ñoom nay ku nekk mën naa wax kii mooy kii ñoom Fana ñoom maam Cissé ñoom ñëpp xam nga leen kii xam naa leen de ñoom ñëpp xam naa leen. ñoom Thiat ah ñoom Thiat ñoom Astou ñoom Khady Diouf ñoom ñëpp xam naa. gis nga macha allah benn. ren sama liggéey bu bees bi moo tax. waaw cette année ci tu n'as pas été assidu waaye les autres années gars yi xam nañ la. xam nañ la bu baax a baax. waaw léegi moom xam nañ la bu baax a baax macha allah. kon li ñuy wax mooy dañ lay jaajëfal. te mm-hmm. ne nit ñi nga xamante ne ñu ngi wax man gis naa ko bind. di di di wax euh, yenn wax yi kasaw kasaw foofu. jarul ko tontu gis naa ko muy bind bëggoon naa ko tontu sax mais. jarul ko kii moom jarul ko. jarul ko jarul ko waaw mais dañu xam ne. nañu xam ne am na coaching ak coaching. sa bopp moom il faut que nit ki a. c'est ça affaire <laughs> c'est ça. programme la boo xam ne comme ni ma leen koy waxee tout le temps rek man leen c'est unique à son genre damuma ci. Euh, damuma ci gisuma ci sama bopp mais dama xam ni man fi ma jaar sama àddina ni mu bëree lënc-lënc ak lëj-lëj ba tey ma toog ba gagné la sourire ba gestionné sama vie ba mën a toog di wax alhamdulilah rabbil alamin kon dama. c'est ça. nga mën a am xel bu dal nga mën a. surtout ça te souffrance te dama wax ni la plupart d'entre nous dañuy souffrir. souffrance boo xamante ni origine bi c'est tellement profond ba nga xam ne boo bëggee yam ci kaw rek tey sa sëy jagul rek nga ni ah sëy bi la sëy bi la fekk yow sa souffrance sa sa être si sa bi ngay judd la commencé. ci parents yi la sos ci sa environnement sa éducation ci sa processus ci sa euh, cheminement ba nga excessé nga gàdduwaale sa valise sa jëkkër gàddu valise am ngeen ñëw na ku nekk di yebbi valise am ngeen war a jàkkaarloo ku nekk ne ah man indi naa traumatisme de kii ah, ne ku nekk bu ngeen tegee seen blessure ngeen liggéey ci mais boo ñëwee ku nekk dina bësa bi naa sama traumatisme war koo gis xaaral ma teg ko fii bu ko gisee dina am problème waaw ku nekk <laughs> ku nekk waaw ah, jusqu'à les masques tombent nag ku nekk naan xamu xaw ma ko parce que wan ma lii man xaw ma ni woon la mel ah, dafa changé fekk na boobu buñ la expliqué rek après nag ci ngay toog di comprendre ba pare boo comprendre da ngay am tendance di culpabiliser wu te fekk na foofu di culpabilisation moom la soxla déedéet a yar. Mm-hmm. a joxu. li nga li nga li nga li nga li nga li ñu ci yow. surtout boo ko mën a joxe. waaw loolu la mais su fekkee yow yaay yar nañ la won nañ la naka ngay def. di nga mën après kii accompagner sa. say doom sa doom même si boo ci amee ki nga xamante ne moom bëggul sax nga accompagner ko parce que am nay xale nga xamante ne ñoom tamit boo leen bëggee surtout ñun man dama gis ne xale yi tamit léeg-léeg. Euh, euh, boo ko tàmbalewul si si ndaw ndaw di ci ko accompagner. ci lay gën a yomb mais y a toujours aussi. waaw ci xale moom ci la lépp gën a yomb mais bu ñu découragé parce que tout le temps rek euh, mën nañu rectifier lépp day dépendre ci approche bi. waaw dafa jafe waaw dafa jafe. Mhm. parce que xale bi moom moom xam nga nu la gisee woon avant. Mhm. bu gisee boo ko boo bëggee changer. communication. naa chérie. muy sa doom muy sa jëkkër dañuy teg communication maman a changé j'ai appris des nouvelles choses je ne la même personne et je veux aussi yéen tamit seen dund su ñu doon dundee changé est-ce que la maman auparavant vous plaisait def leen seen liste et que changement bi c'est tellement facile parce que sa doom bu defee liste moom dina la wax maman def nga ma lii neexuma wax nga ma lii neex nga ne ko d'accord léegi dinañ ci travailler ensemble yow tamit y a ça et ça et ça bu ko parce que gis na ni laa xeeboo ko defoo dominant defoo agression mais là da koy comprendre di ko déglu ba pare di ko may aussi muy wax nga koy déglu yow tamit ngay wax ak moom mu lay déglu di la comprendre kon laa daf lay jox loxo nga jox ko loxo ngeen ànd def chemin mais problème mooy <laughs> bu ñu bëgg du dem noppil <laughs> du dem <laughs> doo ci am dara ah du dem du dem ah dem malheureusement en tout cas daal fin de formation la mais ñun moom dañuy continuer rek di dem rek. Ah, macha ah. en tout cas kontaan nañu. dañuy continuer. Mhm. defandooro yoon bi incha allah ci kanama yàlla bu baax a baax. macha di kontaan am naka mooy yow mii nekk di kii foofu. waaw xadi ñu ngi ci ba ci kanam. kon kon ñu libéré ñu libéré la kon. balaa euh, temps man ma libéré kii bi ligne bi rek. waaw ñu libéré ñu daal jël ki ci ligne bi Seynabou yow am nga chance ñu tudd nañ capp la <laughs> léegi nag <laughs> li ñuy wax ku dugg rek na na def farata bu ko defee ñu daal di kii bu duloo rek du sotti. donc lëkk euh, nañ ci na salaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa salaam wa rahmatulah kooku. waaw kër sama jërëm mu xayri waaw mu lay nuyu di la ziyaare. waaw kër lay fay nuyoo. macha allah di kontaan kii bi wax. Euh, am na luy wax ci suuf da nga koy sori. ah ok ah dañu ah, am téléphone bi wax. bu dee dafa am téléphone booy seetaanee da koy kii da nga koy fay. ok sori naa. Mm. aywa fay naa. yes waaw di kontaan rek ci yow. macha wax ni boo ko xam la jigéen la jigéen bi nga xamante ne nii dafa nekk ci si ak si nekk mu nekk jigéen rek xam ko loolu rek bénéfice la. macha allah ndax euh, bu ñu bokkee sa bu ñu la xamee yàgg nañ laa toog ça fait quatre ans ku dara nekkul doo fa nekk quatre ans di suivre benn femme. femme mm-hmm. boo xamante ne macha allah li mu yor xam-xame na am na ci xam-xame na si diine tënk na si alquran ak na te lépp lu mu lay jàngal dina ko tënk ci àddina tënk ko si diine mm-hmm. formation bi nag macha allah dugg nañ ci euh, jariñu nañ ci lu bari mm-hmm. man su toogee toogee tey jii ba stable tey aw ma tey ranking bu bëri bi sama xol souvent bu bëri effacé wu ma tey dal ëpp si yow yaa ma ci jàppale ci loolu ak loolu yëpp alhamdulilah sant yàlla. parce que man man bañ man ba découvrir sama personnalité. Mhm. xaw ma sax ne loolu xam la moo tax ma xam man sama personnalité. sant yàlla. Mhm. ndekete man samay erreur yu bëri man lii la woon ci sama àddina. Mhm. man maa defarul mais bu ma commencé defarul. la may sama bopp jàmm moo tax nit ku nekk ma may la jàmm. boo ma gisee sax danga naan carrément li am li li reflété si man mooy jàmm nekk si ba intérieur bi may sentir. moom laay jox nit ñi léegi ku ne nag. Mm-hmm. même boo ñëwee tey jii nga war a ma def lu métti dama la koy jëloon nag moom moo ko yaa ko moom yaa ko indi. ma ko jël. lu am solo daa ko jàngee bët. <laughs> lu am solo. ah ah yow daa ko jàngee xaw ma ko woon mais si yow daa ko jàngee. Mm-hmm. parce que dañ lay ñaanal jël ku la xamul rek ku la xamul rek moom moo la dul moom moo la dul kii moom moo la ku la xamul rek ku la déglu ma xam xaaj yi. <laughs> daal ma ne après xoolal dinañ dégg trop. kontaan ci yow daal ko di kontaan ci yow torop sax. macha allah ñu la gën a kontaan. billaay di wax ni am formation bi dépassé ak bii bii nii man gis naa ci changement ci sama wàllu doom parce que man comme li ma koy waxee rek. Mhm. éducation des enfants man man def maa yàq man dafa def ci man lu bari quoi lu bari la def ci man. sant yàlla. Mhm. Mm, billaay xam nga am. avant dama dam am ay métti xol ay affaire yoo xamante ne ma koy maanaam sama xol bi day métti may am na naqar mënuma xam lan la mais depuis ma bokk ci formation bi mm. alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. sant yàlla mm-hmm. waaw surtout wàllu yaru bi yaru yi man mm-hmm. allah man moom man lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax. sant baax macha allah. dinaa ne rëccu ma daal li ma bokk ci formation bi rëccu ma ko. alhamdulilah macha allah mm-hmm. sant yàlla Aïssatou allah. di ñaan rek suñu morom jigéen ñi daal. waaw mm-hmm. nit moom. Eh, jàng daal bu weesu daal te nit boo changer yàlla jàppale jàppale mm-hmm. Mm-hmm. nga def ko ci ay yére ay oto bu de dafa cher te loo xamante billahi man billahi aussi yàlla laa koy seedee mm-hmm. maanaam man léegi eh, damay toog ma ne ndekete man yàlla may na maay moom yu baax man xaw ma ko ndekete man problème bi yëpp man la woon non man damay sant yàlla bu baax. sant yàlla sant bu baax liggéey mm-hmm. na solo. Ah, ah, yow mi nga war a bi yëpp. amiin kontaan nañu bu baax. di la jaajëfal ñun waa 5 kontaan nañu allah ñoo leen gën a kontaan en tout cas am na solo. jërëjëf ay Aïssatou. ñu ngi lay ziar. merci merci merci waa kay soxna euh, nu mu tudd Fatou Faye Fatou Faye da ngay essayer woote si whatsapp bi parce que telegram bi man ci portable bi ngay woote ci la telegram bi nekk te su ma la wuyoo rek euh, problème day daal di am <laughs> live bi du dem du coup Fatou Faye woote direct whatsapp bi waaw soxna Mariama ñu ngi lay wax ngay egg seeg jàmm ak salaam salaamaaleykum salaam. ñu ngi lay fay. macha allah seen sant yi <laughs> rafet na. merci beaucoup. macha allah ñu ngi lay fay. Mm-hmm.

Mariam Mariam xanaa danga takk ay casque danga takk ay casque Mariam dafa dafa fulu de sax kii bi dafa diis euh, dafa mel waaw dafa diis de xaw ma haut-parleur kii daal parce que dafa sori duñu dégg bu leer waaw ah, boo mu nee allo waaw allo waaw dindil casque yi bu dee da nga tax dindi ko bu dee da def haut-parleur la. <laughs> d'accord waaw ah, waaw connexion waaw bu soree day xaw a day xaw a kii mais am problème allez-y. Uh-huh. parrain bu participer. macha allah xam ne nga xam ne rek vraiment kontaan nañ a a baax si yow. si lépp loo xamante ne defal nga ñu ko rek. ñoo leen gën a ñoo leen gën a kontaan. ñoo na laan jëbal. amiin amiin amuñu ñu nga xam ne ba lañ si doon daal sax mooy xam ne wax nañ lépp macha allah. macha allah bu kenn ci daal a a sant yàlla bu ñu la ma fayloo plus tamit di nga fay wallaahi azim bu ñu la ma

waaw macha allah. kontaan ah, merci beaucoup macha allah a baax a nañu bu baax. kontaan nañu waaleykum salaam wa rahmatullah kontaan nañu vraiment di la jaajëfal bu baax a baax ah, di wax ni. Ah, am na solo parce que dañuy gis ni lépp li nga xamante ni rek ñu ngi koy ñu ngi koy jàng rek soxna yi ñu ngi ñu ngi ciy jëriñu et que ñu ngi ciy gis seen bopp ñu ñëw fii nekkoon plus de 44 soxna waaw 44 soxna ñoom ñëpp ñu ngi woon ci formation bi te ñu ngi fii tey di témoigner donc jàpp naa ni 44 personnes du ñu ñëw di témoigner ci ay ci ay waxu naq sa kan nag wala bëgg lu ma neex waaleykum salaam wa rahmatullah daa mel la waaw <laughs> am nga saas de. yëkkati waa nag tëbaat ci nelaw yi kenn mës ko gis. yegg si yegg si jàll am na <laughs> solo. macha allah man dama ne damay dugg si waar rek di wax ci ennéagramme. ah ndax dama ne man ennéagramme rek góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ko war a jàng. mais góor ñi dañoo war a jàng ennéagramme de. te mu ngi ci YouTube bi gratuite léegi. seen seen sox seen sox. xale yi ni ñu changé nii ñu gis changement gis dal gis. ah yu bees yooyu lépp wàcc na. ah. <laughs> dafa am lu ko waral. Mhm. xëy am nañ ko waral. parce que de énéagramme dafa nekk loo xam ne dafa riche. Mhm. imaginer nga xam sa personnalité moroom. Mhm. nga xam sa personnalité yow sa bopp waxuma la dara ak sa njaboot. Mhm. mais sama njaboot yi di jënd doom <laughs> ko bàyyi jàmm. di ko def la bokk su ko defee sama doom bi nga xam ne dafa la kàllaw ci ñu ne sa billah xoolal dina dama kii sëñ bi ne waa kii sëñ bi comprendre nga may nit ñi jàmm. nga comprendre ay faiblesse ay faiblesse am ay foolam. Mhm. di xool di di xool. waaw bi lay yërmande ngay am. dootoo mën a ah, indi. loolu mhm. ennéagramme kese kese kese dafa doy. maam si se loolu lay wax ennéagramme yërmande la ndeysaan. non dafa neex dafa neex. <laughs> dafa neex boo ko xamul nag ko xam. dëgg la mais xamee macha allah. Mhm. nga ñëwaat ci éloquence. tey mun naa fi cité ay personnes yoo xam ne ci sa groupe bii. daal tëb seen i audio bi ñuy doon dugg si. mais éloquence. foofu nga yam